allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame gannaaw buñ ñu santee buur yàlla subhaanahu wa taala nangu julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa yaa ngi fàttaliku woon keroog buñ ñu doon taxaw ak ci waxtaan ba weesu woon ñu ngi tolloon ak yéen ci fi nga xamante ne mooy ñay ragal yàlla ci lu ñuy sóoraale yàlla ci fu leen kenn xamul leneen borom bi tabaraka wa jagleel aaya baa ngi ci suuratul mulk yàlla ñu yàlla may xol bay fàttaliku yàlla saa su ne waaye xel bi nga xamante ne day suur yàlla saa ne ci anam bu munti ne amin yaa rabbal alamin mbokk yi tey ñu fas yéene leen dëgtal beneen buntu bu bees ba ñu war a jokk ci buntu bi weesu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñu ko baaxe ci xadis ba nga xamante ne mooy ngéneelu jëfi ngéneel yi nga xamante ne doomu aadama bi bu ko nekkee fii ci kaw suuf mu di ko dund ëllëg bés penc ci lay góobe résultat meññeef yay wadd ci ngéneelu jëf yooyu mu nekk fii di ko jëf ba tax na ñu di leen fàttali ne rek waxu boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah nee ibnu aadam innama anta ayaamun kullama zahaba yowmun zahaba baado nee na yow doomu aadama bi xamal ne lala fi tax bàyyi lala fi tax a nekk mooy bés yi ñëw di jaar di jàll ba tax na nga bàyyi sa xel bu baax a baax a baax waaw bés yooyu bu ko neenal ba tax na danga war a xam ne bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne bés boobu am na lu mu yóbbale ci sa dund bi sa dund bi wàññeeku na ba tax na bàyyil xel yonent bi sallallahu alayhi wa daal di la baaxee ci xadis bi nga xamante ne mooy qaala nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'ta rajulun fi qabrihi fa ida utiya min qubul ra'sihi dafa'ahu tilawatu alquran wa ida utiya min qibali yadayhi dafa'ahu sadaqatun wa ida utiya min qibali rijlayhi dafaahu mashiihu ilal masajid xadisun saxiix targhib mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yi buntu ngëneel la bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooñu ko baaxe mu ne ñu li nga xamante ne mooy doomu aadama bi nee na keroog bu yàlla dogalee ci moom mu faatu sallallahu alayhi wa dañu xamal ne dinañ ko dikki ci bàmmeel ba mu tëdd lañ koy dikkee mooy mbugalu yàlla dina ko dikkee ci kanam walla ci bopp bi waaw bu dee mbugalu yàlla bi dikkee na ko ci bopp bi nee na dafaahu tilaawatun quraan jàng al quraan yam doon jàng fii ci àddina dina kaare mbugal yooyu dikkee doomu aadama boobu ci boppam bu dee mbugal yi dikkee nañ ko ci kanam walla ci diggante ñaari loxoom yi yonent bi nee na sarax ba mu doon génnee sarax ba mu doon joxe ci ay loxoom nee sarax yooyu ñooy contrecarrer mbugal yooyu nee na bi léegi di nga gis mbugal yi dikkee ko ci diggante ñaari tànkam yi nee na mbugal yi buñ ko dikkee ci diggante ñaari tànkam yi nga gis ne la koy contrecarrer mooy dox ya dox di dem ci jàkk ji loolu mooy soppeeku doon défenseur yu koy défendre ci mbugalu yàlla jooju sallallahu alayhi wa sallam moo ñu xamal lii bu duutoon moom kenn duñu mën a wax lay xew ci biir bàmmeel gannaaw bu doomu aadama bi faatoo mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bu ñu taxawee ci bunt bi tuuti dinañu gis détail yu bari yi nga xamante ne war nañ ko war a mën a gën a taawil ñu gën ko gën a andil faram ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa moo bëgg a baaxee xeet bi rawatina yow jullit bi nga xamante ni yaa fi nekk di jàng téere yàlla bi di alquraanul karim waaye yaa fi nekk di jëfandikoo atte ya alquraanul karim tëral waaye yow yaay ki sopp téere borom bi subhaanahu wa taala ci sa biir xol ba tax na fonk nga ñi ko jàng ba tax na fonk nga fa ñuy jàngee téere yàlla boobu di alquraanul karim fonk nga képp ku làmboo alquraan fonk nga leen fonk nga bërëb yañ koy jàngee mais téere bi ci jëmmam fonk nga ko fonkaay boo xamante ne képp ku bul bëgg am li ci sa loxo na dugg ci alquraan ca ngay mën a sa am-am wala lala yàlla wërsëgal ngir nga tàbbil ko ci alquran xataa képp ku bëgg a am li ca poos bu la ne may ma lii ci barke alquran da ngay julli sa poos noonu la ñuy déggee cofeel ba waaye di am ci alxuraan nga bëgg ku ko jàng nga sopp fañ koy jànge nga sopp ñu koy jàngale ndax ñoom la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam takkal garaat bu toll ni xayrukum man taallama al quran wa allamahu ki gën ci yéen tànneef tànneef ba yàlla tànn ci askan bi ci xeet bi ci nit ñi mooy kan mooy ki jàng alquran xam la ca alquran mu di ci géema góor góorlu dundu atte ya alquran tëral be noppi ci mu di ko jàngale kii la yonentu bi ne kii mooy tànneef ci nit ñi sallallahu alayhi wa sallam tax na kooku la yonentu bi joxoñ fii sallallahu alayhi wa mu ne yu'taa rajulun fi qabrihi nee ne dinañu dikkee ab waay ci biir bàmmelam lañ koy dikkee mooy xeetu mbëgal mbugal yay dikkee waay ci biir bàmmelam mbugal yay dikkee képp ku nga xamante ne roob nañ la yonent bi nee na fa ida utiya min qibali raasihi bu dee mbugal bi dakaa dikkee ci boppam ci côté bopp bi bu dee mbugal bay ñëw ci waajooju mbugal bi dakaa dikkee dañ ko indi ci côté bopp bi yonent bi nee na dafaahu tilaawatul qur'aan njàng alqur'aan ba muy jàng fii ci àddina tilaawatul qur'aan yooyu mu nekkee di ko sàmm wante fii ci àddina alqur'aan bi day doon défenseur ba koy musal ci mbugal boobu dikkee ko ci côté bopp bi alquran bi mooy doon avocat bi nga xamante ni moo koy plaidel waaye alquran bi mooy doon kiiraange ba nga xamante ni moo koy aar ci mbugal jooju dikkeeku ci côté bopp bi ba tax na képp ku bëgg alquran doon défense luy contrecarrer mbugal ya lay dikkee ci sa côté bopp bi dee ko jàng dee ko safoo safool ñaka jàng taxawel ñaka jàng na nga taxawee fañ kay jànge na ko sopp sa xol jël sa ñaq di ko fa dugal manifestel sa cofeel bi nga am ci alquran na ko wone bi ñépp xam ne fu alquran jibe du la bàyyi nga ànd ak sa sago nii lañuy soppee alquran kon nga xam ne keroog bu yàlla dogalee la yonent bi melale fii loolu daal di am mbugal bi ñëw ci sa côté bopp bi su ko defee alquran dina jóg taxaw défendre la ne kii bu leen laal fa ngeen ko dikkee bu ngeen laal bopp bi ndax man maa fi ne man la xaritool ca àddina man la doon njàng ci guddi man la doon njàng ci waxtu yu fajar fépp fu mu dégg ñu di ma fa yëkkati waa ji day tàqale ko sagoom sañ naa jël lépp lu nekk ci poosam yi yulli ko ca fañ may jànge ñama jàng bi mokkal da leen sopp ñamay jàngale da leen sopp du leen doyadal donte moom dina des xiif ak mar mais ci képp ku ma nekk te moom mu xam ko dalay yëkkati jox la sa dayo màggal la anam wii lañuy soppee alquran ci sa biir xol nga di ko manifester ci biti nit ñi xamee la sa cofeel ci alquran keroog boo tàqale koog dund àddina bi buñ la robee bu alquran nekk ci sa bopp bi walla mu nekk ci sa dënn bi mbugal ba yonent bi ne mbugal bi bu la dikkee ci sa côté bopp bi alquran mooy ne jëmee taxaw ni soccet dal di la défendre ne kii bu ko kenn laal fu ngeen ko dikkee baaxul waaw ndax fii kenn nekk ko fi ku dul man alquran kon dem leen xooli feneen fu ngeen koy jaar mais bopp bi moom baaxul fu ngeen jaar foofu nooyul waaw alquran daal di la défendre waaw kañ nii lañuy ñuy déggee baat bi yonent bi sallallahu alayhi wa bi léegi mbokk yi mu daldi ñu xamal wa iza utiya min qibali dafa axu sadaqatu nee bu ñu dikkee waajooju ci diggante ñaari loxoom yi ñu nar ko ci mbugal nee na sarax bam doon joxe fii ci àddina mooy ne jëmmee jóg taxaw ni soccet moom it mu ne leen mbugal bi ngeen dikkee ci waa ji ci diggante ñaari loxo mi fii nooyul fii man sarax maa fi nekk sarax bi moo lay défendre ci mbugal yooyu ñu la dikkee ci sa diggante ñaari loxo yi kon yow mi ñuy topp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bu dee da bëgg sarax yaa ngay saraxe ñu doon ëllëg ci sa bàmmeel ñu lay musal ci mbugal yay dikke ci sa diggante loxo yi baril li ngay saraxe baril li ngay joxe sarax ci say loxo ndax yonent bi ne keroog bu dee dañoo indi mbugal nara mbugal sa diggante ñaari loxo yi sarax ya ngay saraxe ñuy jóg taxaw plaidé la nike la avocat daldi la musal ci mbugal yooyu nar ñu nar laa mbugal sa diggante loxo yi kon ndekkite ñu déggee ci maana xadis bi ba léegi doomu aadama bi rawatina jullit bi geste yi mu nekk fii ci kaw suuf mu di ko def di ko sellal te yàlla rekk a tax bu ko dee fekkee ci geste yooyu yooyu mun nañ ko musal ci mbugal bi nga xamante ne nar naka kaa jànkuwanteel ci bàmmeelam kon moo tax yonent wi ne wa ida utiya min qibali yadayhi bu ñu dikkee mbugal bi ci waajooju ci diggante ñaari loxo mi ñu nar ko ci mbugal dafaahu dafaatuhu sadaqatun nee na sarax ya mu doon génne ñam yam doon togg ŋabb ñaari bool yi yóbbul ko miskin walla sarax yam doon génnee takk ay enveloppe yu duun daldi ko baaxe miskinu yàlla ba ko yittewu walla jébbal ko mbokk bu jege bi nga xamante ni yittewoo na ko walla jébbal ko waaye yàlla bi nga xamante ne ab doxandéem la amul mënul kenn dalalu ko waaye gannaaw bi mu déggee xibaar ji walla gannaaw bi mu xamee situation doxandeem jooju mu daldi jël la koy satisfaire ci dund mu taxawee ko ba keroog situation bi di changer kon sarax jooju waa ji di saraxe jëmmale ko ci miskinu yàlla walla ci faqiir walla ci mbokk bu jege te mu soxla walla doxandéem bi nga xamante ne amul dallukaay amul kenn ku koy dalal yow mi jël sa alal moo xam ñam bu ñu togg la moo xam ñam bu ñorut la moo xam xaalis la nga ngëbb ko jox ko keroog buñ la naree mbugal ci say diggante loxo sarax ya nga doon joxe sarax yooju ñuy taxaw défendre la ci mbugal jooju sallallahu alayhi wa léegi mu ne ñu wa ida utiya min qibali rajilay bu ñu dikkee ak mbugal ci diggante tànk ya dafa dafaahu machiyuhu ilal masajid dox yamu doon dox jéego yamu doon séq di ko jéego wala di ko dox jëm ci jàkka ja jéego yooyu walla dox yooyu mu doon dox ñoo koy défendre ci mbugal ba ñu dikkee ci diggante tànk ya kon yow mii di dox guddig bitig subak ngoon di dem ci jàkka ji aller xamal ne du neen bu ci tàyyi bu ci sonn ñoo ko gën a barilee keroog bu ñu la tëralee ci sa bàmmeel ñu nar a mbugal sa diggante tànk yi keroog ngay xam nginil ba nekk dox ya nga doon dox walla jéego bi nga doon séq di dem ci jàkka ja waaw tànku ndeyjoor tànku càmmoñ ba nga doon yëkkati di ko doxee di dem ci jàkka ja loolu yépp borom bi dala koy épargnel keroog bu dee mbugal bi nar naa tàbbi sa diggante tànk yi dox ba ngay dox di dem ci jàkka ja yow jullit bi dox yooyu la yàlla di soppi ay jëmm ñu daal di la défendre ci mbugal ba nga xamante ne moom lañ la nara mbugal ci sa diggante tànk yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne ci xadis bi yuta rajul dinañu dikkee ab waay fii qabrihi ci bàmmelaam lañ lañ koy dikkee ay mbugal mu ne fa ida utiya min raasihi bu ñu ko diggee ak mbugal ci côté boppam dafa ahu tilawatul qur'an njànguma alqur'an ba mu doon jàng fii ci àddina sopp bu mu sopp alqur'an yàlla ji mooy jóg taxaw mu daldi ko musal ci mbugal boobu ñu nar ko mbugal ci boppam mu ne wa ida utiya min qibali yadayhi dafaahu aw dafa dafaatuhu sadaqatun bu dee dañoo andi mbugal bañ ko nara a mbugal ci côté diggante loxo yi yonent bi nee na sarax ba mu doon génne fii ci àddina di ko jox faqiir yi di ko jox miskiin yi di ko jox jirim yi di si jox ko mbokk di si dimbali wayu néew ju doole sarax yooyu mu doon jox nit yi ñu leen lim ni ñu nekk ci situation bi ni mel yonent bi nee na sarax soosu mu doon saraxe sarax woowu muy jóg taxaw défendre ko musal ko ci mbëggal bañ ko bëgg mbëggal ci diggante loxo yi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu wa iza utiya min qibali rijlayhi bu dee dañ ko dikkee mbuggal ci diggante tànkam yi dafa dafaahu mashiyuhu ilal masajid dox bu mu doon dox di dem ci jàkka ja jéego bu mu doon séq di ko dox di dem ci jàkka ja dox woowu mooy soppeeku mu doon lu koy défendre lu koy musal ci mbugal boobu ñu nar ko mbugal ci diggante tànk yi kon képp ku bëgg la nga xamante ne mooy la lay défendre keroog ñu la tëralee ci sa bàmmeel na nga sàlloo na nga wottu na nga géem a góor-góorlu tënk sa bopp la yonent bi baaxee ci maana xadis bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bi nga xamante ne daf ñu ne maa aamana bi man baata shabaanan wa jaaruhu jaa'iun ila jambihi wa huwa ya'lam sallallahu alayhi wa sallam na maa amana bi kii dee gëmmuma man yonent bi maa amana bi kii dee topp kii bokkul ci ñi ma gëm kii gëmut la ma moo yonent bi koy joxoñ fi mu ne man baata shabaanan képp ku fanaane suur wa jaaruhu fekk dikkandoram bi jaa'iun mu ngi fanaanu xiif ilaa janbihi ci wetam wa huwa fekk moom mi fanaanoog suur yaalam xam na ne mbokkam ba nekk ci wetam daa fanaanoo xiif mbokk ñu war a déggee ci maanaa xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa joxoñ ab waay bi nga xamante ni daa jikkowu jikko ju suufe mu ni kii dee gëmmut lama ma andi kii gëmmut yàlla kii gëmmut la ma yàlla jox kii gëmul la ma yàlla yónni mooy kii kooku mooy kan yonent bi ne kooku mooy man képp koo xamante ne baata shabaanan moom dafa fanaanoo fekk mu ngi suur gën lekk na ba desal suur na bay giix fekk wa jaaruhu dëkkandooraam ba mu dëkkal jaa'iun kooku mu ngi fanaano xiif kooku fanaano xiif nag ilaa janbihi kooku mu ngi wetam wa huwa yaalam te xam na ni kii nekk nii sama wet njabootu yàlla ba ñu naan faqiir la wa huwa moom xam na ki nekk sama wet fii njabootu yàlla ba ñu naan miskiin wa huwa moom xam na ki fanaanu xiif njabootu yàlla la koo xamante ne ki jirim la wa huwa moom xam na ne mbokkam bi nekk ci wetaam jaa'iun fanaanoo ak na ak xiif te kooku dëkkandooram la wala mbokkam la walla njabootu yàlla la bi ñu naan fakir wala miskin yonent bi ne képp ku jikko jikko wii kii gëmut la ma andi kii gëmut yàlla kon nga déggee ci ne waaye bu dee munoo yekkal sa dëkkandoor bu nekk sawet wet waaye waaye boo jëfandikoo ba pare defar ko ba mu jekk nga daal di ko ko yët waaye boo ko yekkaloon mooy li gën sallallahu alayhi wa mu ne kii gëmuma kan kii gëmut yàlla mooy yonent bi mooy kan mu ne man baata shabaanan ki regg ci guddi suur gël lekk bi suur ba regg bi giix wa jaaruhu fekk dikkandooram jaa'iun mu ngi fanaanoo xiif ba bi di wañaaro ilaa janbihi ci wetam ni mu di ko seen walla wa huwa yaalam fekk xam na ko allahu akbar mbokk yi nañ leen jël xadis bi def ko centimètre natt ko par rapport ak ñun tey lu ñuy dund ak suñu dëkkandoor yi lu ñuy dund ak njabootu yàlla ba ñu yàlla sedd ñu doon suñu dëkkandoor est-ce que ñu ngi leen di yekkal est-ce que ñu leen di may est-ce que ñu leen di suuraale est-ce que ñu ngi leen di bàyyi xel est-ce que est-ce que est tontu bi mu ngi ci kanam ba tax na képp ku jikkow la xadis bi joxoñ fii yonent bi nee na gëmoo yàlla gëmoo la mu andi moom yonent bi kon bu dee danga bëgg bokk ci ñu gëm yàlla na nga bàyyi xel sa dëkkandoor na jël sa dëkkandoor bàyyi ko xel di ko sëdd di ko sóor lala yàlla wërsëgal doonte day doon lu néew moo naka la nit di mën a suuree ci guddi lekk bi suur lekk ba regg nga jëfandikoo sa ñam ba suur te mu wóor na la ne kii ma dëkkal nii de amul dànku ceeb ba mu fanaanoo amul dara la mu ñam ci guddi bi mook njabootam te nga xam ko yonent bi ne képp ku jikko jikko bi kii gëmmuti yàlla te gëmmu ma man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na kooku bokkul ci gaayam yi allahu akbar moo tax mu ne maa amana kii dee gëmul bii la ma àndi maa amana kii bokkul ci ñu gëm bii ci li ma yàlla jox mooy kan man baata shabaanan képp ku lekk ci guddi bi rekk nga suur benn kël wa jaaru fekk dëkkandooram jaa'i un mu ngi xiib ilaa janbihi ci wetam wa huwa fekk ne moom yaalamu moo ngi xam loolu loolu wér na ko ne sama dëkkandoor bi amut lu sama dëkkandoor bi amut lu muy dugal ci gémmiñam te man maa ngi nii lekk naa bi suur ma jaaxaan di raay sama biir di giix te wóor ne sama dëkkandoor bi nekk sama wet amul dara lu muy jëfandikoo yonent bi ne képp ku jikkoo jikko wi gëmoo gëmoo la ma yàlla jox ngir ma andi ko te mooy alxuraan sallallahu alayhi wa lii la ñaax jullit bi ngir mu nar a xel dëkkandooraam bi nga xamante ne moom la ko yàlla baaxee ngir mu dëkk ak moom kon nañ leen bàyyi xel suñuy dikkandoor yi nañ leen suuraale suñu dikkandoor yi nañ leen géem bàyyi xel sa dëkkandoor nag du dañ kumpa waaw du dañ kumpa du xool la mu toogee wala la mu nekkee après nga di ko wax déedéet du noonu de bàyyi xel sa dikkandoor mooy xoolal fu mu faiblesse xoolal faiblesse am fu mu nekk fu mu tëlee nga jàppale ko côté boobu waaw kañ nii la ñuy déggee maanaam bi mbokk yi yàlla nañu yàlla may dégg ak topp waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nar a jébbal bërëb bi ñay jox xibaar di leen ñaanal yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla may dégg ak topp jaalana allahu wa iyaakum min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulata umuurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan